ñi euh, souffrir ci faible bi di insuffisance rénale vraiment chapeau à ñi nga xam ne mooy suñu corps euh, médical jàmbaar lañu ci waar bi Issa remercier bu baax a baax ci les informations du jour ñu dugg ci suñu actualité aussi mooy mbirum campagne de commercialisation bi yaa ngi koy wax léegi Issa di demande Bassirou Ba lu tax mu takk euh, brassard rouge bi mais cela va de soi veut dire que am na lu leen mettre notamment ci prix yi je suppose. oui ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm Issa comme ni nga ko waxee noonu la demee. Euh, dañu am lu ñu métti te képp kuy baykat da am lu la métti li la métti mooy président Macky Sall ak régime moom ñoo bëgg a tër li nga xam ne mooy mbay raay ko mu dee. léegi nag loolu lañ ñu teel a signalé wane ne am nañu naqar parce que ñun ay doomu béykat lañu bay lañ yaakaar donc ku ñu xalaat ne fi nga jëm ak moom baaxut foofu ñu wan la ko malheureusement nag dégg naa mu ne moom du gis lu xonq mais ñun am nañu sañ-sañu euh, ni ñu xalaatee ne buñ ko ko defee. dina ko gis ñu def ko donc bu bu fekkee ne laaj bi mooy dañ am lu ñu naqari waaw dañ am lu ñu naqari mbay mi moo am jafe-jafe ñu dégg. mais lu nekk lu bees Bassirou mbay mi dafa am jafe-jafe chaque année campagne de commercialisation bu commencé doo leen nangu prix doo leen ci d'accord nekk lu bees mais cette fois-ci comme ni ñu ko waxee euh, <laughs> dërëm lañ ci yokk kon amul na ñoo wax ne chaque année c'est la même chose amul dara lu fi bees. waaw xam nga ren dafa xaw a ak yeneen yi parce que yi doon ñëw yëpp. dangay ngay comprendre ni am na lu xew waxtaan nañu am na lu ñu yokk même bu fekkee da doon dem juróomi dërëm parce que ñu jóge woon ci deux cent soixante au dem deux cent soixante quinze muy quinze francs mais c'est la première fois bi àdduna di tey ci fi jamono bi toll ak ni dépense yi yokkee ci côté mbay mi ak ci fépp ba nga xam ne fonctionnaire yi sax dañ leen yokkal ñu xam ko donc ñu toll fii ñu xam ne état wu Sénégal gëstu nañu ñun. ne gerte bi ñu am ren diis na macha allah li ci baax diis na fees na am na ñu ko soxla mooy ñiy exporté euh, Soudan bi nga xam ne ñoom ñoo doon xaccante ak ñun nga xam ne bu Sénégal di Soudan Soudan googu dañ nekk ci guerre donc mu am benn calcul boo xam ne ñiy exporté dañ koy def kon Sénégal moo fi son ren ci am loo xam ne da doon jéggi dayoom ci prix pour dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi beneen mooy dégg ngeen bu baax ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yëpp. wutali géej bi te ay doomu waykat ñoo fa dem ñu yaakaaroon na ci loolu dina tax tey képp koo xam ne yaa ngi ci nguur gi di xalaat ne jafe-jafeñ bi ci mbay mi mu ngi fa parce que ca lañ xalaat ne fa lañ mën a téye xale yi que Covid 19 jàngal nañu loolu kon buñ góorgóorlu woo xale yi ci mbay mi bañ bayi fa ba pare yegg ci période bii liñ am bari na bariwul dañ yaakaaroon na état wu ak fi mu toll du xalaat di yokkal nit ñu dërëm ñun nag dañ xaw a jaaxle sax biñ déggee na dërëm lañ yokku mm-hmm. man damay fàtte dërëm dafa am sama kër ñemuma yëkkati benn dërëm ne ab xale am ñemewuma ko te gisuma ko ko ñeme euh, ba tax na déggoon nañ sax benn kilifa ci benn bërëb mu génne fa ab say maanaam ab 1 million teg ko ci table ne ku fi génne dërëm te un million boobu dafa delluwaat. nekkatul valeur marchande waaw pour wax la ne dërëm amatul mu mel ni ñun. Euh, dañ ñoo ñee wala dañ ñoo bañ wala ab sarax la gouvernement bi am pour jox ñu ko ci yokk ab dërëm boobule. loolu dañuy wax ne ñàkkoon ñoo yokkal ñu ne fa prix ba nekkoon daaw moo ñu gënal fuuf moo yokkal ñu ab dërëm loolu na mooy naqar bi nga xam ne am na ci te bu fekkoon rek dañu yem ci yokk ab dërëm ñu ne waaw waaye ñun mënuñu ñu yokkal dërëm ba pare bàyyiwaat ñu ak ñi xam ne ñoom ñooy opérateurs yi bàyyiwaat ñu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy huiliers yi di usines yi fi nekk te xalaatuñu ne laata ay at ci ginnaaw 2018 képp jëm jàpp 2017 ay bon MP daf feesoon dell mhm. ñun ñoo ko feesaloon mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey tudd opérateur ak euh, Sonacos bi fi nekk lan la woon parce que usines yi ñoo fi nekkoon ñu bëgg leen dimbale dimbale ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateur yi pour ñu koy ëlbatiku di jaar seen biir boobu ñiy exporté nekkuñ foon tey bu ñu waxee dañuy ñag frontières yi ba nga xam ne lii di jiwu du génn mooy tëj nañu frontières yi mhm. pour béykat yëpp xam ne état wu Sénégal yemut ci yokk dërëm bi kese mais dafa tëj frontières yi Sénégal pour gerte bi bañ a génn loolu ñu jaay ko ci réew mu des ci réew mi mhm. loolu am na lu bëri luñ ci mën yaatal loo xam ne mhm. bu fekkee dafa am rek dinañ am problème sax benn par benn ci ponk yooyu mais dañ ko dégg tey moom Samba Ndiobène Ka miñ dénk wàllum <coughs> yi nga xam ne ñoom itam jël nañ bu baax euh, question bi mu di wàllum commercialisation bu arachide ak yeneen xëy na sax dinañ ñëw ci chiffre yi mu joxe parce que sàng yaa ngi wax que ni dafa mel ni fulaaluñ leen euh, daaw 93 milliards 414 euh, millions la woon ci budget ren ñu yóbbu ko xat yi ba 207 milliards 842 euh, millions ak lu teg donc daanaka budget bi li ci yokku dafa bari trop ci wàllum agriculture beneen bi mooy ci njëgu gerte gi ñuy wax moom li mu ci xamle moo di que ni maanaam ni ñuy waxee day mel ni comme si ñoom état bi dañoo force baykat yi ne leen cent deux cent quatre rek moom ngeen war a jaayee alors que ñoom dañoo fixé prix boobu boo xam ne pour que du du ko mën euh, maanaam du mën a weesu loolu jëm ci suuf mais kum neex mën nga jaayee lu la neex ci euh, ñi nga xam ne ñooy jënd ko jaay mais ñoom prix bi ñu fixeel baykat yi mooy ñi nga xam ne xëy na état bi mooy jënd ci ñoom donc du euh, y différence selon yow wala danga nga jàpp que ni moom li muy jéem a justifier amul wuute. waaw xam nga li nga njëkkee wax mooy budget bi ni muy yokkee. waay Issa ñun dañ jógee ci quarante milliards deux mille dix neuf. Mmh. ñu jox ko pour intrant képp. ñu tegal ñu vingt milliards muy soixante milliards. at bi ñu ko yokkalee ci la baykat gën a tumuraanke ci jiw daf ko gën a tuutale jiw daf ko gën a bonle lam koy jëndee mu gën a cher ñu ñëwaat continuer ñu tegalaat ñu dix milliards muy soixante dix milliards ren ñu tegal ñu trente milliards muy cent milliards ISA groupe de médias ngeen yor macha allah yéen a ngi fépp wax leen seen correspondant yëpp ñu wëral leen ci gox goxaan yëpp ma li may dafay leer. ñu laaj ban baykat moom la ay kilo am ci kilo yokk ñu wax leen ban baykat moom la la mu doon jëndee avant ci li état subventionné gën a wàññeeku amul alors que dañuy yokkal ay milliards kon ñun dafa jaad woon ñu ne nañu lañ bëtal càmbaral ñu milliards yi ñuy wax ba pare ba xam fii la jëm ci ñun wala yegsi wala wala wala jëmul ci ñun bu dafa tag fan la tag lu tax mu tag xam nga neex na nga tudd ay milliards ay budget di ko wax rek di ko jëmale. ci ay 207 milliards. gis nga waaw 207 mais yokk boo dafa bëgg wan ne état fulal na li nga xam ne mooy secteur de l' agriculture te bu ñu ne agriculture de question seulement c' est vrai que baykat bi fa la commencé mais travail de chaîne la am na transformation waa ISRA dañuy dugg ci biir ñi nga xam ne ñooy defar semence et tout donc travail la boo xam ne c' est nekk socle bi mais aussi travail à la chaîne la. xam nga lan mooy jafe-jafe wu euh, état wu mm-hmm. mbay mi dañ jàpp ne ñun suñu maam yi nañ meloon ba léegi noonu lañ mel nekkuñu fi di gëstu ñu fi di xam àdduna bi nu muy doxee nekkuñu lu ñu teg suñu kaw rek. ñu ne baax na cest yi dañuy dem lëlu xalaat ba pare bu doon na rëbbukat lañu dañ naan la dañuy taal cin bi ba mu bax ba pare ñu dem rek napp baykat bi ñëw dugal. loolu la ñuy jàppee te loolu dafa dindi la woon dafa waneeku gis nga ak technologie yi dëkk bi xale yi ñëpp ak xam ni muy demee mënul nekk ci am réew nga ñuy tuddee ay milliards. te ñun ñu xam ne milliards yi yegsiwul mhm. d' abord nañu jàngat milliards yi yooyu ñuy tudd ndax ñun ñoo ko tax a jóg wala déet ah, gis nga baykat bi ak fu mu nekk parce baykat dañ ko tudde maanaam ndoxu raxasu la ci gàttal ñun dañuy raxasee xaalis mais xaalis bi du pour ñun mhm. bu leen neexee nañ tudd milliards yu bari mais milliards yi yegsiwul ci ñun kon Issa mhm. ci këram première question bi dañuy wax ne état au Sénégal neex na mu naan milliards yii 217 yokku nañ doublé nañ ko doublé nañ ko waaye nañ ñu dimbali ñu càmbaral ñu milliards yu yi ba xam fan la dugg ba pare. Mhm. ñun laajuñu ñu ñuy jox ay xaalis mais nañu càmbaral ba pare ba ñëw waaw. Mhm. beneen bi mooy li nga wax ci côté. prix bi waaw prix plancher bi. xam nga prix plancher bi ñun xam nañ ne stratégie la théorie la pour ñoom dañ ko def pour rey nit ñi moo tax ñi ciy profité sax bu ñu toll rek naan noonu nañ leen di leeral ci olof ne mbir mi mbiru laltaay la. waaw Issa yow soo ma joxee benn toogu ba pare def ci ay pont yu sew jël as dara su ndaw teg ci na ma toogal loolu mooy laltaay bu ndaw bi su ma toogee danaa yëg jam jam boole du ma ko yëg. si alors que mënoon nga jël matelas teg ko wala nga dindi foo xam ne amul benn pont ma toog ca du loolu moo gën plancher sooy defal nit ki prix bu tuuti boobu nga ko daaw def nañ ko 275 marché bi dem ba ci 500 francs mais boo daan nit da nga koy dimbale fekkee noonu la ñuy dimbalee baaxut bu ñuy dimbalee nañ ñu wax ne à partir de 450 francs fra planche bi yem nga xam ne boo toogee da ngay sentir ne yow mii kii toog protégé na bëggut jam jam jam yi jam la mm-hmm. mais donc ne li lay protégé moo gën a suufee kon du mën a baax beneen bi mooy dañ koy wax pour que ni prix bi bu mu gën a wàññeeku nangam nangam mais ñun am nañ ñaari expérience yëpp. Mhm. ñun génne nañ fi ab prix mooy bi mu toll ci deux cent euh, dix bi. ñu am ay jafe-jafe ci luuma yi. nit ñi ñëw di jënd mooy que prix bi nga xam ne prix planche la. te boobu ministre de commerce euh, ministre de l' euh, comme bi. force de l'arme waaw mhm. gendarmerie yooyu yëpp ñu ngi ci. mais bi mu amee ñu wax ma ko samay ndaw wax ñu ko ci luuma yi parce que ñun chaque luuma dañuy wër fépp dem xooli ji prix yi mais bi ñu ma ko waxee jaar naa fu ne ba ci ministre Moussa Baldé bi fi nekkoon oo ko téléphone mais Issa yow mi nga xam ne woote moon ak yow bu fekkee réglé nga ko mooy ñoom réglé nañ ko te ñooñu ñu ngi continuer di dem tey ña ñuy taseel ci biir luuma yi ñoom ñooy suñuy nit parce que ñun dañu am ay commerçant mooy baana baana yi jënd gerte bi am ay baykat yuy jaay ji mais dañ naan la carrément dafa am nu ñuy weccante dafa am fu ñuy jaar ak ñoom pour mbir mi jàll donc du am benn stratégie boo xam ne mën nañ ko def ñu bañ ñu jaayante ko ci seen biir baana yi wax nga ko xëy na seko yi nga xam ne mooy am ci dëkk yi foofu la prix bi di concerné mais marché yi euh, bu la neexee Basirou Ba boo bayee ba pare nga jël sa gerte jaayee ko xarisi la bu accepté nga jaayee ko ko 1000 francs euh, bërki démb rek jënd gerte bu nga xam ne 1000 1000 1100 francs la benn kilo waaw donc bu fekkente ne prix bi tey dem na ba yéeg foofu noonu ñu ne la deux cent quatre-vingts mën nañu xëy na comprendre euh, wala sax jéema comprendre li nga xam ne moom la sàmm njobeen Ka doon wax tey assemblée nationale. waaw xam nga baana baana. baana baana la tuddu baana baana mooy dafay jënd fii. am ci ab ñaar dërëm dem jaay ji ko fële amuñu fonds yoo xam ne mën nañu jënd pour stocker léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen ginnaaw ñooñu mooy le opérateur ñooñu ñooy jël gerte bi bu état joxee sax tey li mu joxe ni deux cent quatre-vingt